asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi su ngeen gisee jataay bi ak woote bi ngeen xam ne xew-xew bu mag moo am lan moo xew sëñ Moustapha Amar borom Thiès moo woote journée culturelle Darmankoy cinquième édition yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm mbokk yi sëñ Moustapha Amar borom Thiès su wootee lu toll ni journée culturelle Darmankoy bis bu rëy la bis bu màgg la ci ñun ci askanu Thiès si doomu senegal yëpp nag ndax su suñu Moustapha Amar boroom cees doomu senegal la ñëpp a ko sopp ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko wóolu ñëpp a ko doyloo ndax taxawaayam ci biir Thiès taxawaayam senegal taxawaayam ci àdduna wërngal képp ñun nag waa cees rawante na waa Ngent suñu Moustapha Amar borom Thiès bu jëlee journée culturelle dal maa indi koy ñu ko fii nga xamante ne si mooy Thiès rawatina quartier Thiès ngent ñun waruñoo def lu dul laxasaayu xar suñuy tànk tubéy xar suñuy dàll uniquement pour journée bi mel na mu war a mel yàlla dogal na ni nag def nañ ko première édition mu jaar yoon ñu def ko ñaareel mu jaar yoon ñu def ko ñetteel ba ak si juróom yàlla na yàlla may ñu def ko ba def ko lu mat téeméeri yoon sëñ Moustapha Amar lii nga xam ne moom la wootee wootewu lu dul li maamam mi doon wootee wootewu lu dul li baayam doon wootee mooy lan yàlla yonent bi Serigne Touba bis bi woote wuñ ci dara lu du bu nu xëyee ci kattanu yàlla nan ko daan defee mooy jàng alxuraan sunu jàngee alxuraan bi nga xam ne moom sunu borom santaane muy kaamil bi sunu noppee midi une ñu woote joxe berna yi sunu yi ba pare ci kattanu yàlla ak màggaayam bu tàkkusaanee ñu yeggale ko ci jàng xasida yi bu nu julee timis ba noppi nag. ci la cérémonie officielle bi doo ko commencé ñu waxtaane ñan muy waxtaanu jaar-jaaru mag ñi lii la sëñ Moustapha Amar woote wootewul leneen dimbali nit ñi dimbali taalibe yi saxal leen ci jub ak ci taalibe képp ci lay dox te ci loolu lay wax ñi ngi ñaan nag képp fu waay ne na nga ñëw wuy si ci bis bi nga xam ne sëñ Moustapha Amar borom Thiès moom lay woote woote ko fii ci quartier Ngent nga xamante ne si mooy li nga xamante ne si mooy euh, taalibe yi darmaan yëpp ah ñu ngi ciy woo nag képp koo xamee suñu soppee nga suñu wëlëre nga ñu ngi lay woo ak suñu am di jàmmam ñu ngi ciy jiital ñi nga xam ne ñooy samay mbokki bopp ndax kat nit bu ñu fekkee da ngaa xewle yaakaar naa ni say mbokk kenn wala cee jiitu ak samay xariti bopp ñi ngi ciy woo nag ñii nga xamante ni si mooy monsieur le maire di woo ki nga xam mooy Pape Camara docteur Pape Camara responsable Pastef di fii nekk fii ci quartier Nguent di woo Birame Souleye Diop mi nga xam mooy sunu maire di sunu député di sunu lépp di sunu xarit di sunu lépp ñu ngi koy woo ñu woo ki nga xamante ne si mooy ki nga xamante ne si mooy Njaga Sekk di sama xarit di sama seex di sama lépp ndax Njaga fu ma nekk ma nga fa kon ñu ngi koy woo ci bis bii moom lañuy wax ne bis bi du ci so euh, du ci tubay déedéet caaya la ci kon ñu ngi koy woo ci bis bii ñu ngi woo ñi nga xamante ne si nag mooy ku mel ne sëñ Assane borom nasru sëñ Omar Njëgéen mii nga xamante ni si mi ngi ci nasru moom ñi ngi woo ki nga xam mooy sëñ Matar Guèye di jëwriñ sëñ Assane ñu ngi koy woo di suñu xarit di di woo sëñ Matar Mbàkke di woo xaadim Kebe mi nga xam ne moom la ma yàlla booleel ñu bokk di liggéey ci suñu barab bee nga xamante ni si mooy parking bi nekk ci place de l'Indépendance place Obélisque bi ñu ngi woo tamit kii nga xamante ni si mooy Baye mbay di sama xarit di sama lépp ñu bokk lañuy liggéey ñu ngi ko ci woo waaye bis bi nag dañ koo jagleel ki nga xamante ne si sama xarit la sama seex la sama lépp la muy soxna mbiita ñu koy wax maam gay ñu ngi koy woo ci lépp yaakaar nañ ko ci xaar nañ ko ci ci léppam ndax boo déggee ñu ne yaakaar nañ ko ci ndax seet surtout Cheikh Ibra la responsable politique la waaye surtout Cheikh Ibra la ñu ngi ko ci woo muy soxna jee gay bis bi dafa am ñoo xamante ni si faaw ñu beral leen ci loxo ñu mel ni njabootu waa Seyeen te nga xam ne kii ñuy wax Pape Sey moo fa nekk xalifa gi di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko ndax ñoom premier édition bi ba tey ñu nekk suñu juróom-benn ñoom seen kër dañuy génn seen i nekk génn seen saal joxe lépp gan nekk fa kon ñooñu sëñ Moustapha Amar nee na amul seen fay. ñii nga xamante ne si te mooy waa kër Maada Tall waa Tallinn ñoom ñi nga xam ne suñ Moustapha Amar bi muy jàng foofu la nekkoon seen bàyyi nekkoon taalibe yi way juru sëñ Moustapha Amar mii lañ ci àndee démb ba tey dara ñaaw daa rafet lool sëñ Abdou Ndiaye it tey jii yàlla dafa dogal mu nekk ci gànt waaye fii moo nekkoon place am ndax chaque année moom mooy kii def annonce bi ñu koy ñaanal yàlla suñu borom woyofal tànkam bala mu nekkoon mu tee cee suñ Abdou Ndiaye fàttewuñ ko diwoo tamit waa juugéen ñi nga xamante ni si at mu jot ñoo koy taxaw ak waa peneen sëñ Moustapha Amar daal pour gàttal nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn mi ngi woo ñëpp bis bi seen bis la ndax bisu askanu Darmanko yi du bis bu ndaw ndax bu nee Darmanko yi ñooy borom ñaari cër yi ndax ñoom ñoo daroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nu ñëw sëñ Tuubaa see xalaat leen kon ñoom boroom ñaari cër yi loolu nag. ku ko xam su la ca wooyee doo ko wuute ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm muy la le 24 décembre ci kattanu yàlla ak yërmandem di woo waa Thiès gépp di woo waa Ngent gépp di wax ni bis bii sunu bis la lu waay mën lu ci waay xam lu ci waay am nan ko ci def ngir bis bi mel na mu war a mel ndax sëñ Moustapha Amal borom cees jar na ko ndax bu ko neexoon yóbbu ko tuubaa bu ko neexul yóbbu ko Ndakaaru bu ko neexul yóbbu ko Njaarne bu ko neexoon yóbbu ko jéemul ndax foofu la ak cosaanam nekk foofu la ay mbokki boppam nekk waaye bu ko jëlee indil ñu ko Thiès daf ñu ko sagalee ñun waa Thiès nit nag bu fekkee dalay sagoo na ko sagal te kon lii nag lañ cee woote wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakaatu. salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sëñ Moustapha borom Thiès nga xamante ni moo woote bis bu rëy bii ci Thiès di woote bis bu rëy bi bis bi mu woote woo ma ci man mii mu ci woo ku mu war a ndax fu baayam tegoon tànkam sans bàyyi nga woon ca wetam kon tey bu wootee bis woo ma ci def na li ko war bis bi mu woote nag ñi ngi ñaan yàlla yal nañ ko commencé baa eggale ko siim ñuy ñaan yàlla bis bi yal na ci yàlla wis ndox mu sedd yàlla jàpp ci def ci taw féex may woon nag bokki Cees yëpp Thiès nag mooy woote Thiès moom damay jiital Medina Fall Medina Fall gi ma dëkk maa ngi woo ñëpp di ko commencé nag ci Mouhamed Ndiaye sama xaritu bopp maa ngi koy woo ci sama bis bi ndax bis bi sama bis la du bisu kenn sëñ Tafa lu mu def ñun la ko defal ndax dar maa ngi koy ak waa Taaleen yaakaar naa ne démb la woon du tey soo demee Touba kër baayam sama waa kër baay ña nga fa dañ leen faa joxul dëkkuwaay ñu dëkk fa tubaar tubaarkàlla bu kër baayam ku jege fenn ci dëkk bi sama kër ngay wàcc ku jógee ndakaaru fenn sama kër bàjjen ngay wàcc wala sunu kër Dakar bu dee ndarit fu waay jóge sunu kër ngay wàcc kon sëñ Tafa bu wootee bis bu toll nii ñëw woo ma ci bis bii man lu ma jàpp dama ko war a bàyyi ñëw wuy si dara waru gën dara waru maa gën a ñor lu dul bis bii bis bi nag kañ la la 24 décembre lu ma gën a ñor ni bis bii aw ma ko képp kuy sama xarit wala ngay sama wëllëre wala ngay sama soppe maa ngi lay woo ci bis bi maa ngi woo Badou Diagne di woo biraan Gueye di woo ñëpp ci bis bi sama niti bopp yooyu Ablaye Sincère bu marché maa ngi lay woo maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum sama niti bopp yi ma am yëpp maa ngi leen di woo ndax ku lim fàtte maa ngi ñaan nag bis bi yal na ko yàlla ay eggale jàmm sëñ Tafa jërëjëf def nga li nga war a def jërëjëf. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant. di commencé bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko alhamdulilahi rabbil alamin macha allah bis bii dafa ñor taab bi kenn gësamu ko ku baax kii ku tedd kii bu indee tubaarkàll lii waroon ko yóbbu fu ne ñëw indi ko ngent kon kenn ku ci nekk war nga cee mën a xar sa tànk tubéy waaye ci wàllum waañ wi maa ngi ciy woo képp kuy sama mbokk waa ngent waa nasru waa guy sombel waa taax kaw yéen ñëpp maa ngi leen di woo ci waañ wi bëgg naa tubaarkàlla yéen ñëpp na ngeen teel a ñëw ñu jàpp ci liggéey bi teel defal xéewal yi mu pare kontaan nañu wasalaam. mbokk yi ñuy suivre à ci média yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq tey baal ñëpp àq di rafetlu jotaay bi bu baax a baax a baax a baax ma ne sonoo wax ni mën nañoo tàllal rek ma ñaan ndax li waroon a wax lépp wax nañ ko waaye nag comme dafay yëfi dara am na ci part boo xam ni man rek maa koy mën a xam ngir man koo leeral ginnaaw bi ñu santee bu baax a baax a baax di sant sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi ak mbooleem jullit yëpp ak xalifa généraux yëpp bis bi nag dañ cee am ay ndigalu suñuy mag suñuy kilifa muy darmanko yi ginnaaw bi ñu waxee sëñ Ibrahima Dior Amar nga xam ne mooy xalifab sëñ Ndonga Dior di xalifab jéemul ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér moom lañ am ndigalam waaye tamit am ci mbooleem askanu Darmanko yëpp nag bu waxee ni Darmanko yëpp kenn ku ci ne waxtaan nañu ak yow xamal la ni la dinañ def bisub Darmanko yi bisub Darmanko yi nag yàgg nañ koo taxawal di ko def bi mooy cinquième édition ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi ciy woo xalifab sëriñ Aliou Amar di xalifab sëñ Ndongo Joor di sëñ Ibrahima Joor Amar jiital ko ci waaye nag dañuy wax xalifab maam Gumba Bint Amar muy sëriñ Baara Amar bu ñu ko xasee tudd rek mel na ni tudd nañ ñëpp bu ñu xasee tudd sëriñ boobu mel na ni tudd nañ ñëpp waaye nag dañ cee am it sëriñ Mourtala Amar nga xamante ni mooy xalifab sëñ Mor Fadilma Amar Gàddeen dañ ko ciy jiital di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko woo ak xalifa sëriñ Jéeri Waadaan Sugu nga xamante ni mooy sëñ Maxtaar Sugu ak sëriñ xalifab xaali Baba Joxumpa ak mbooleem askanu Darmanko yëpp ñu ngi lay woo ci bis boobu nga xam ne moom la ñuy taxawal di ko def chaque année. bis bi nag ren mooy cinquième édition dañ ciy tàmm ay thèmes waaye cinquième édition bi dafa dajeek ñaanuk sëriñ Aliou Amar ku ne xam na ne sëriñ Aliou mooy sama waajur sëriñ Ndongo Dior mooy baayam sëriñ Aliou Amar moomu dañ koy ñaanal chaque année Mbacke Kajoor ba suba sa te tey Mbacke Kajoor dafa nekk le 23 de euh, décembre journée culturelle bi nekk 24 kon ñaanuk sëriñ Aliou le 24 la mu dajee ak moom ñu ngi ko ci ñaanal bu baax waaye nag ginnaaw loolu dañ ciy def ab thème ndax chaque année dañ ciy tànn ay thèmes waxtaane ak ñoom ku ne xam ne ni sëñ Ndongo Joor sëñ Paata Joor sëñ Ibra Joor ñett ñu bokk ndey ak bàyyi la sëriñ Tuubaa seexal leen waaye amoon na seen benn mag bu ñuy wax Mamma Joor Mamma Joor nag mooy ki nga xam ne moo indi woon El Hadj Malick si Njaarde te jamono yooyu mu fekkante fa ak sëñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk dégg na histoire u Njaarde Mamma Joor nag moom ak sëñ Ndongo ak sëñ Paata ak sëñ Ibra ñoo bokk ndey ak bàyyi kooku la ñu waxtaanee ci temam muy cinquième édition waaye chaque année ak góor yàlla yi nga xamante ne ñoom lañ ci ñoom lañ ci rendre hommage sëriñ May Amar di sunu waajur di kenn ci ñun euh, sëriñ ibnu amar bokk ak sëñ naa Aliou ndey ak baay muy rakku sëñ Aliou moom it ñu ko ciy fàttaliku di ko ci rendre hommage sëñ Thierno Diouf Lambaye kenn la woon ci ñun kenn la woon ci sëñ Aliou Amar euh, jaxasoo ak ñun lool ba am na ay jarbaatam yoo xamante ni sax euh, ay doomam yoo xamante ni man maay seen nijaay ñu ko ci rendre hommage du ko ci fàttaliku waaye nag sama waajur soxna Faati Amar bi mu fi jógee léegi dafa yàggul daanaka mi ngi toll ci 4 mois ko ciy fàttaliku di ko ñaanal bis bi nag bu ne des na juróom-ñaari fan ci la ñu jàng kaamil alxuraan bi ba ci bis bi muy juróom-ñaar nga xam ne dinañ ci def juróom-ñaari kaamil jàngal ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ciy rendre hommage ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ci ñoom lañ ci ñoom lañ ciy fàttaliku. ginnaaw loolu nag am na ay parrain ak ay invité yoo xam ne toujours invité d'honneur yooyu dañ leen di woo ci bis bi ànd ak ñun ci ci ci ci ci ci bis bi loolu jàll na ci ci ci bande annonce bi euh, danañ ko gis ci yeneen plateforme bu ñu waxee maxtar Amar Maxtaar Amar euh, bokk fi ñuy wax mbaqis kon naari naari mbaqis yëpp dañuy bokk ak ñun jotaay bi ànd ak ñun ndax Maxtaar Amar moom mooy parrain bi waaye sëñ Tall Amar naamee nit bokk ak ñun ci parrain yi nga xamante ni waa naameen gépp dañ leen dañ dañ leen ci dañ leen ciy woo suñu xaritu bopp yi nga xamante ni ci administratif lañ bokk bu ñu waxee le ministre Aly Ngouille Ndiaye nga xam ni yàgg na moom ak sama nijaay lan woon moo yore ministre de l' agriculture ak ki nga xam ne mooy directeur Omar Sané moom it di kenn ci ñun ñu ko ci boole ci parrain yi ginnaaw loolu nag am na ay marraine marraine yoo xamante ni toujours mooy ki ñuy jàppale ci ci ci ci bis bi manoon na wax ni sañ am di wax na ko léegi muy soxna jéegay moo it wax dëgg yàlla am di di jàmbaar ci bis bi am lool yenn ci bis bi am tamit lool ci am di mi nga xamante ni bi la ci kër gi mu koy jàppale di ko taxawu ci ne muy soxna jéegay bokk ak ñun ci ci ci marraine yi ak ki ni wax soxna Josephine Mbuub soxna Josephine Boubine ñu yàggul lool lool lool nga xamante ni presque média yëpp war nañ koo xam ba télévision yëpp nekkoon TFM nekkoon fa yoroon fa directrice euh, si je me trompe pas am na lu mu ci yoroon kon kookit it ñoom mare na ko ci bis bi muy jàmbar waaye am sunu invité d'honneur boo xam ni sunu lépp la di ko wax di Mokhtar muy jàmbar nag lool waaw Sidi Mokhtar Sylla euh, dëkk Wakaam di fa def cant gu mag di sama waaye di sama lépp chaque année bis bi noonu lay demee dina am ay invité surprise yoo xamante ni ca bis bi lan koy lan koy lan koy taxawee boobu la lan koy def mbokk yi ñu di leen xamal ni leen bis bi am di wax na ko léegi man je suis né ici à Thiès fii laa juddoo le première er octobre 1900 voilà tel point de suspension maa ngi juddoo fii ci Thiès euh, ginnaaw raay quartier bi nu wax ginnaaw raay fa laa juddoo ci sama maam kon mënumaa ñàkk ba ñëwoo waa ginnaaw raay ndax bu may barul dara ci ñoom laa nekkoon fa laa yaroo fa laa lépp waa ginnaaw raay dama leen ciy woo di woo waa Kawsara waa na Fall comme ni ko soxna si waxee Eh, borom Thiès daal bu ñu ko xësee wax rek mel na ni woo na quartier yëpp kon bàyyiwul kenn kenn kenn kenn kenn di sant ak gërëm ñi nga xamante ne ay sponsor lan ci bis bi. ndax eh, toujours dan koy boole ci biir askanu Ndarmanko am na koo xamante ni moom lañu ñuy wax mondial tissu di Maguette Touré chaque année day jàpp ci bis bi moom it di jàmbaar lool am koo xam ne Modou Mbacke maar la di mbokk ci ñun di taalibe ci ñun ñu di ko wax trois m ak ki nga xamante ni kati création la vraiment di jàmbaar. wax dëgg yàlla am chaque année daana yàgg taxaw ñun nekk ba Cité Djily Mbaye di di ñëw lu baax ñu ngi koy woo di woo organes yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal presse ak ñi nga xamante ni ñoo nekk biir cees ne Mor Gueye sopp na bi eh, kenn la ci ñun ki nga xamante ni mooy Maodo Malick Mbaye ku yàgg àndu ak ñun la monsieur le maire de la ville de fàtte fàttewuñ ko taale si la ndax moo ñu daan jox salbe nga xam ni moom lañ ko daan defee kon kooku mënuñu ko fàtte fii ci ngent nag bu ñu waxee ngent am na ñu fi fii la nekk ci ngent man noonu wax ni tamit euh, voilà euh, ñi nga xamante ni tey jii mooy monsieur le maire bi nga xamante ni moo nekk euh, Birame Souley nekk fii ci kii bi moom it dañ koy woo di woo tamit ak Pape Camara ñi nga xamante ni ñoo nekk ñoo nekk ñoo nekk ngent di woo Cheikh Ndoye ñi nga xamante ñoo bokk ngent te yàgg na noo jàpp ak ñun ci bis bi am kon dañ leen ciy woo di woo suñu xarit nag suñu xarit bopp boo xamante ni Abdoulaye Dieye ku ne xam na ni ma demee ak moom am na foo xamante ni jaar na fa ak ñun yàgg nan voilà donc kooku it euh, ñu ko mënuñu ko mënuñu ko fàtte waaw ñu woo ko ci bis bi beral ko cant bu kenn euh, jàpp ni bis bi kenn ku ci nekk am nga ci am nga ci wàll askanu Darmanko nag ñëpp nga ci biir Cheikh Bass Gumbale Alaaji bàyyi bàyyiwun kenn ci biir askanu askanu askanu Darmanko kon ñu ngi woo mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk fii Siré Dia le ministre de l'artisanat docteur Ndiaye moom it ñu ngi koy woo di kenn ci ñun vraiment Makhtar Seye chambre de métier voilà waaw ñu ngi woo ñëpp mbooleem ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkal nekk Thiès rek ñu ngi koy ñu ñu ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax sëriñ Laay Diouf moom sëriñ euh, Thierno Diouf bi nu demee wax ko bis bi da cee ànd ak ñun kontaan ci ak ñun sëriñ Mama Amar mi nga xam ne mooy xalifab Baye sëñ May Amar bi nu demee da cee ànd ak ñun kontaan ci ak ñun kii nga xam ne mooy sëñ Xaadim Amar xalifab sëñ Ibnu da cee bég lool ànd ci ak ñun tabarkalla ñu ngi dikkaat nag ci euh, ngir fii ci ñu nekk muy Thiès ku ne xam ne représentant murid yi mooy Serigne Saliou Touré ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ñu ngi koy jiital bu buñ ko waxee xësee wax rek day mel ni chapelet day mel ni maanaam cruche buñ xësee jàpp benn per mel na na jàpp nan yëpp waaye nag du caagi ni mën na noo wax ñi nga xamante ni chaque année ñu ànd ak ñun ku ci mel ni euh, sëñ Assane Kane Nasru di jàmbaar ci ñun vraiment moom it wax dëgg yàlla ñu ngi ci am yéene di ko ci woo Serigne Khadim Lo Gaydel ak euh, ñi nga xamante ne ñooy waa Medina Fall Baye Fall yi ak Kawsara ñoom ñëpp ñu nga xamante ne ñoo ngi leen ciy woo di ci woo nag mbokki Darmanko yi ñi nga xamante ne ñoo nekk biir Thiès Massamba Amar Thiès la nekk di jàmbar di kilifa buñ ko xësee wax rek day mel ne ne jàllale nañ lépp ak mboolem association naari kajoor bu nekk Thiès ñoo ngi la xëy woo Abdoulahad Amar nekk fii di Thiès di nijaay ci man ñu di ko wax sëñ Abdoulahad Amar buñ ko xësee wax rek mel na ni mbooleem yi nekk cité Senghor ak sal silma ak ñoom ñëpp woonal leen ci ñu ànd ak ñun ci ci ci ci jotaay bi bu ma xësee tudd sañ sañ Baara rek xalifa euh, mel na ni tudd na ñëpp loolu nag moo waral ñu ñu yeesalaat ñi ndax da ciy am bis bi chaque année ñoo xam dañ ci am taxawaay bu am solo di ci di ci ànd ak ñun kon ñu ngi leen di ñu ngi leen di jégguluwaat bu baax di baalu ñëpp di leen jox rendez-vous euh, le 24 décembre euh, foofu ci ci deux voies ngent yi le préfet nag dafay am taxawaay boo xam ne chaque année mu taxaw ci mooy préfet yi xam ne mooy préfet Thiès chaque année mu taxawuñu ci dinañ ci def CRD bu boobaa média bi dinañ ñëw ñun ñëpp nañ ko defee woon daawit muy joxe ay Euh, comment il s'appelle encore euh, don de sang yeeg euh, consultation gratuite yooyu yëpp dina am incha allah bu neexee suñu borom lépp lu luñ fa defoon daaw rek fas ne noo def rek ko waree nii ma gisee nag jotaay bi nii dafa am lu muy firndeel ni suñ Moustapha nit ñi sopp nañ ko sëñ Moustapha Amar borom cees ngent bëgg nañ ko ndax bi ñu wootee nii rek bu ñu xoolee ci jotaay bi li ci ëpp ci soxna yi la kon ñoom soxna yi nag ñoo yor lépp ñu ngi sant soxna yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun tey jii ci avant première bi biñ leen woowee matul une heure de temps te ñoom ñëpp dajale dox seen yéene jox seen yitte na leen leer nag bis bi bésub Darmanko la Darmanko mooy ñi daroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wëlbatiku dar Serigne Touba sama maam nag dafa àndoon ak Serigne Touba samay maam danoo àndoon ak Darmanko yoon wi deseetuma fi bàyyi te lu ma ñaan yàlla loo ci fas incha allah bu neexee suñu borom